dañoo dakh ki téye ki ba paré benen bi mooy euh, sur le dossier de laser. la même chose ce sont des sénégalais qui se sont sentis lésés au détriment d'étrangers ba tay ken waxu ci dara yoy yep tay ji dañu am ñu bari ño xamanteni japp nañ ne am lu bari lu ci nek lo xamanteni jot nañu léral ko légui nak pour ñu léral ko nak moy test grandeur nature bu jub jubal jubanti bi benen bi nga xamanteni aussi dafa dafa menacer suñu cohésion sociale ak suñu vivre ensemble c'est l'affaire Cheikh Oumar Diagne nga c'est des déclarations qui visent à faire sauter les verrous d'un vivre ensemble et d'une cohésion nationale Dès bu nekk da nga am lu la jig ñun sunu dëkk dafa remettre et nous interpellons le chef de l'État comme nous interpellons toutes les institutions yi sont ci mi pour ñu jouer ce rôle pour pour dire plus jamais ça parce que tey jii réew moo mën a dem tey jii boo demee Angleterre lu la neex mën ko wax mais la famille royale da nga leen si vous États-Unis Abraham Lincoln George Washington wala ñu êtes keneen kenn du ko laal France toute la classe française veut être gaulliste mais nous, suñuy père fondateurs, El Cheikh Moussa Kamara, Moi, Maulana Cheikh Ibrahima Niass Moi, euh, Mam Cheikh Ahmad Bamba c'est Seydi Hadji nous nous, nous, nangu ci sa ci say humeur ak say état d'âme ngay dal ci seen kaw comme nous mu la donc il faut laisser le sacré tel quel ñu bàyyi ko noonu mu nekk sunu soubassement sous sunu cëslaay sunu keno yi nga xamante ji la ñuy donc s'ils font de la politique ils n'ont qu'à faire de la politique mais amna lo xamanteni xamante euh, dafa transcender c'est des questions transcendantales yo xamanteni ni nañ ko bàyyi nonu mu mel et que limay wax moy le premier ministre sorti yi mu def ni yëpp amut lu gëna am solo mu wax ci le dossier de l'ONAS le dossier de Lazer, le dossier Cheikh Oumar Diagne des questions importantes qui doivent être éludées. et su protéger aussi ça une dernière question l'assemblée sera dissoute d'ici quelques jours euh, comme Sénégalais ce bien sûr bien sûr Inchallah, nous dañuy dellu à l'Assemblée nationale parce que sénégalais yi euh, a li ñu